di feddale sant suñu borom ci tawféex gi nga xam ne defalaat nañu ko ba ñu fekkee waat jataay yu am solo yi nga xam ne baaxoo nañ ko amal saa yoo xamee ne dugg nañ ci weer wu tedd wi di ko baaxoo amal ci bis yu tedd yi nga xam ne mooy bisi àjjuma mu doon jataay yoo xam ne jataay yu fàttalante la jataay yu jàngale la mu doon loo xam ne gis nañ ne am na solo lool ci weer wu tedd wi ndax yàlla dogal na wer la woo xam ne mënees na cee jariñoo bu baax a baax ci anam yu bari rawatina ci wàllu xam-xam te barab bi it doon barab boo xam ne it barabu xam-xam la ndax ci xam-xam la sosu ci la di dox ba jamono yi nga xam ne lañ toll waral kon mbokk yi ci ndigalu kilifa yi ñu xam ñu gis ne kon amna solo lool sa yo xamee ne waxtu yu tedd yi ci ñuy amal jataay yu am solo yi comme ni ma ko waxee ñu koy defee ci ndigalu kilifa yi euh, tey nag incha allah ñu koy wéyalee comme niñ ko amalee woon rek ci at yi nga xam ne moo weesu mu doon programme boo xam ne kon soob yàlla tey lay tàmbalee ñu koy wéyal ba nga xam ne kon weer wi incha allah dana jeex euh, ni ma ko waxee programme bi tey lay tàmbalee ñu ci ànd ak suñu mbokk Serigne Xaadim mu ñuy fas yéene ñu waxtaanal ci thème boo xam ne bu am solo la boo xam ne danañ ci dellu si léegi incha allah naka noonu ajjuma ji nga xam ne mooy ajjuma ji ñëwit incha allah danañ ci ànd ak suñu mbokk docteur Serigne Xaadim Bousso moom it mu ñuy amal waxtaan woo xam ne am solo la muy di aju ci sëriñ bi ak li nga xam ne mooy wàllu tarbiya ruuxiya ba ca topp it incha allah danañ fas yéene ànd sunu mbokk Serigne Cheikh Mbacke ci thème boo xam ne it bu am solo lay doon muy jullit ji ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci jamono yi nga xam ne moom lañ toll beneen ajjuma bi ci toppit incha allah danañ ànd ak sëriñ Ahmad Mbàkke mu daarul Muxti moom it mu indil ñuy thème boo xam ne bu am solo la muy eh, ki nga xam ne mooy sëriñ bi ak ni nga xam ne eh, noonu la mel ci digganteem ak eh, maanaam jaamu yàlla nu ak maanaam Euh, solo si nga xam ne jox na ko ko naka noonu it wala boog sëriñ bi nga xam ne mooy euh, diggante sëriñ bi ak ni nga xam ne noonu la meloon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy cofeel bu tar gi nga xam ne moom la sëriñ bi ëmbaloon ki nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy thème boo xam ne bu am solo la kon noo mbokk yi incha allah euh, diiran weeru koor gi kon incha allah loolu mooy programme bi nga xam ne moom lañ fas yéene wéyal ci jataay yi nga xam ne mooy jataay yu am solo yi ci jataay yu xam-xam di ñaan suñu borom kon mu defal ñu tawféex ba nii ñu ci tàbbee tey ci bismillahi rahmaani rahim mu defal ñu tawféex it ban génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin te mbooleem li nga xam ne it mooy jubluwaay yi nga xam ne moom lañ ci am suñu borom defal ñu ci xéewal ba noonu ñu ko bëggee ñu amalee ko noonu kon mbokk yi tey programme bi ni mu fas yéene doxee incha allah danañ jox Serigne Massamba Bousso mu ubbi kàddu yi muy kàddu yi euh, dalal di kàddu kaddu kàddu yi tatagal yoo xam ne dana jóge ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ginnaaw loolu danañ woy ci li nga xam ne mooy waxtaan wi ak Serigne Khadim bu loolu weesoo danañ indi ay kaddu yoo xam ne mooy jëm ci wàllu thème bi waaye ñu tëjee kàddu gi nga xam ne mooy kaddu Serigne Hamad mu koy wax ci turu mboolem njabootu njabootu suñu maam Serigne Diagne Bousso kon incha allah euh, waxtaan wi incha allah noonu la fas yéene doxe tey di ñaan suñu borom kon mu defal ñu tawfiq ba li nga xam ne mooy jubluwaay bi lépp ñu amee ko ni noonu kon sëriñ bi bismillah ñu jox la kàddu gi. wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim muhammadin wa ala alihi yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu di suñu kàddu di ko tàmbalee rek di sant yàlla subhaanahu wa mi nga xam ne nii moo ñu mayaat ci kàttanam ak coobare ñu teewaat jataay bu ñu koy sant subhaanahu wa taala di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadul Xadim Ahmadul Xadim euh, ni ko sëñ Sam waxee bi ji di jotee ndigal ci kilifa yu tedd yi euh, sëriñ Gede Bousso sëñ Maam Balla ak sëñ Abo nga xam ne nii suñu mag sëriñ Cerno moo leen jëmmal yor seen kàddu mu wax ne nañ yëkkati kàddu gi ngir tatagal nit yi dalal leen commission eh, culturelle bi nga xam ne nii moo nekk ci masjidu Masaalikul Jinaan mi ngi dalal ñëpp di leen tatagal ci turu sant su baax soosu di leen wax ne jataay yi nga xam ne nii moom la li nga xam ne nii mooy jubluwaay bi mooy barab bii dafa bokk ci barab yi nga xam ne nii lislaam rekk moo fi mas a li nga xam ne nii mooy jeexital li nga xam ne nii moo gën di ko ci mag gi ñu mën koo saxal mooy barab bii moom euh, li nga xam ne nii moom lañ koy ràññee mooy lislaam loole la ca siiw mooy Cheikh Omar Fouti bi nga xam ne nii euh, gis ngeen ne jàmbaari lislaam la woon waroon bu mag boobu mu nga xam ne nii mag ñi dañuy wax ne dafa amoon yàlla xamal ko ne fépp koo xam ne ni teg nga fa sa tànk bi lislaam dana fa agsi ci lu jaasi kon loolu taxul muy wër wër bu magam boobu waaye nga wax nañ ne li ñëwee ci gox bi ci barab bi fi la dajewoon ak mag gi ba àgg sax di leen bégal ci ñëwam ci Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul su ko defee tamit kon loolu rek jeexal na bu ma boo xam ne dañuy xam ne fii moom am na loo xam ne ni yàlla moo ko waaye gis ngeen ne Maolana Cheikhul Khadim euh, moom it bokk na ci barab yi nga xam ne nii am na fa ay jeexital yu mooy barab bii ñu wax diir bu yàgg boo xam ne nii nekk na fi di fi jaamu yàlla di taalif ànd na suñu maam bi baax te muy Serigne Mbacké Bousso te mu bokk ci téere yi nga xam ne nii moo fi gën a fës ci mu euh, taalif ko fii ci barab bi muy Masaalikul Jinaan kon looloo tax ñuy barkeeloo tuboobu ba saa yu ñu tuddee jàkk ji askanam ko loolu su ko defee tamit euh, loolu nga xam ne ay xew-xew yu yàgg ku ko dégg mën naa laaj ana barab bi lan moo ko feeñal waaye lu ku nekk nag ka nga xam ne ni moo ko fekkee su fekkente ni moo ko seede wala si ne ko mën a jàpp ndax man ñi li ñuy wax mooy Sëriñ Mbàkke Buso 1936 bi mu fi ñëwaatee ngir yeesal barab bi moom ci boppam moo ñëw ba ci garab bi teg ci loxo xam na ne suñu garab gi dañu ngi nii kon loola ka nga xam ne nii moo ko fekkee moo ko nekk li moo ko génnewaat amut laam-laame su ko defee comme tamit ñoom seen tànk yépp fi ko teg mooy euh, lislaam bi mat sëkk moo tax mu rëdd bi jumaa ju mel nga xam ne nii euh, sëñ si mën laa def doon wax ne bi mu seetee xibla bi gisuñ ci gox bi jumaay Tuubaa ji mag jële moom it jumaa ji moo ko rëdd kon muy Sëriñ Mbàkke Bousso moo ko moom ci boppam ci loxoom moo taxit ba ñu dem fa di ko yeesal dañoo fexe ba fa nga xam ne ni fa la ko jaarale woon rek foofu lañ ko jaarale waat amul lenn loo xam ne ni moo ca mooy kon nag loolu lépp su fekkente ne bi dafa am fii ci gox bi euh, dafay yenn lool fu mu di ko dundal ci lislaam looloo taxoon kon ci ndigalu euh, kilifa yi ñu amal lépp li nga xam ne ni mooy liggéeyam fam tàmbalee ak fam yem mooy fexe ba dundal fi lislaam dundal fi xam-xam ba lépp loo xam ne nii waroon nañoo dem ci yeneen gox di ko fa jéggaane ñu fexe ba fii mu am fi yaatu fi ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi lenn loo xam ne ni dana leen lënd seen diine wala ñu soxla ci wàllu xam-xam euh, duñ koy uti feneen kon yaakaar naa ne tamit euh, boobu ba léegi ñu ngi dox ay jéego yu am solo yoo xam ne nii euh, mi ngi mel mu toll mi ngi gën a yaatu ba léegi sax ah, suñuy rak ak suñuy doom ñoo ci gën a dugal seen loxo bu baax a baax a baax te bañ koo tàmbalee ba léegi ñi ngi yaatal bu baax a baax ñu ngi leen di sant ñoom ci turu kilifa yi di leen ne fi ngeen teg seen tànk foofa la ndax kat fii seen maam yi nga xam ne nii ñoo sos ak ñoo fi nekkoon loolu rek la gën dundal su ko defee ne kon ñi ngi dalal mbooleem ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci gox bi te lépp loo xam ne ni ñu ngi ko fi yëkkati kenn du leen ca man kenn du leen ca jiitu kon euh, ñu ngi leen di dalal bu baax a baax a baax di leen xamal ne barab bii de nga xam ne nii fi lay nekk di dundal képp koo xam ne nii bëgg nga lu baax ba tàbbal fi sa sa sa sa sa ne ko ci barab boo xam ne nii mate na ko bu sëkk sëkk bu baax a baax tamit suñu mo suñu mbokki ustaas yi nga xam ne nii saa yu wootee ci barabu xam-xam wala ci anamu xam-xam danañ fa teew euh, jëmmal barab ba taaral ko gis nañ seen teewaay bu baax a baax a baax di gën a yi rek ñëpp di leen xamal nañu ñun eh, liñ ci nekk rek mooy jiima tansiir ah, waaye li ci li ci des nag mbokk yi ñoo koy eh, àggale su ko defee tamit am na leneen xam ne ni ci bees ren ren mooy xam jataayu xam-xam la dañoo bëgg eh, di ko fàttali ko lenn ci mag ñi nga xam ne ni dañ koy nekkoon di def lu baax saytu barab bi ñoŋal ko. dëkk suñu loxo mu nekk loo xam ne nii ci ak cër boo xam ne ni moo ko moomal demut tey dooru ñëw kon loolu rek mooy solos li nga tax ñu xam ne ñu ko ciy tudd waaye moom moom lépp euh, waaye te su ko ci tuddee rek ngir fedd li loo xam ne nii amoon na ko démb tey dooru ñëw kon tey daal bi bii moom lañ ko darajaale mu mel ne tamit wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax njaboot yi nga xam ne nii ñoo sa rek ci moom ca bopp ba sañ ngene nekk fa ak i rakkam wax dëgg yàlla wane nañ ci bis bi seen yéene joo xam ne nii sant bu baax di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne tax lii jëf yàlla leen yàlla fay lu tooy seen jom kon daal yaakaar naa ngir bañ a guddal ñi ngi dalal ñëpp di sant ñëpp di yaatal ñëpp di leen xamal la tamit comme ni ko tàmbalee tey rek jataay bi dafay yaatu lool képp koo xam ne nii euh, bëgg nga koo fekkee wala am nga yaakaar nga ne thème bi nga xam ne ni moom am nga loo ci mën a doomu aadama yi am nga loo ci mën a jullit ñi ngi lay bunt di yaatal dañ koo sos rek waaye ak ubbi la boo xam ne nii ñëpp lañ ko ubbi kon sëriñ Sam dafay mel ne ñi ngi euh, maanaam yemale foofu kàddu gi rek di leen dalal yéen tamit sëriñ Xaadim Bousso mi nga xam ne nii moo ñu war a defal euh, waxtaan wi moom it ci laj na bi la bokk waaye moom it ci ràññeeku la koo xam ne saa mu def ci loo xam ne nii kawe na njortam na xëy na dafay rek ci xër nga xam ne nii moom la waajuram bu baax ba ci barab bi liggéey fi liggéey yu am solo euh, jotaay yi bu ñëwaat donc suñu magge serigne musoo bi dañ ci daal teew di ci soññee di ci yaatal bu baax a baax kon ñu leen di ñaanal yàlla na yàlla dolli yërmande fañ nekk te li nga xam ne moom lañ leen liggéeyal seen maam ci barab bi yàlla nañ ci yàlla fay lu kawe seen njom kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu a'udhu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين يا الله يا موجد كل موجد من الورى منزها عن موجد صل على أكرم خلقك عليه محمد خير وسيلة إليك سدد لساني نوير جناني صف أماني وزبراي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokki jullit yu tedd yu baax yi daje ci barab bu sell bi ci bis bu màgg bu tedd bi ci weeru bu màgg bu sell bi ñu ngi yëkkati nuyoo yi gën a tedd te gën a sell ci nuyoo yi mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaan nuyoo boobu li mu làmboo ci jàmm ak yërmande barke yàlla ñu ko suñu borom boole defal ñun ñëpp ci nuyoo boobu ak ziyaar boobu nag ñu ngi ci jiital kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi te buñ ci tuddee sëriñ Abo ak sëriñ Cerno day yóbbaale mbooleem ñu fi nekk ñëpp teew ci jotaay bi ci barab bi di ndokkeel ñëpp ci weer wu mag wu sell wi nga ñu muy ramadan al mubarak di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala liñ ci jota def ak liñ am yéene def ko lépp yàlla ñu ko suñu borom nangul te fulal ñu ko te dencal ñu ko ci bi sallallahu alayhi wa wa sallam di sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne ñu ñu daan yi di ko baaxewaan ñu leen it ñu teewe ko am wér ak sago sago ak man-manu man koo teewe ba man cee bokk ñu sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci loolu di ko ñaan mu gën ñoo yokk wér gën ñoo yokk man gën ñoo yokk sago di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ne ci jotaay bi waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ne néewuñ ci jotaay bi waaye suñu kàddu mi ngi àgg ci ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziyaara Euh, waxtaan wi ni ko Serigne Sam waxee ci li mu fas yéenee jëm mooy teg teggiini jàkka wala teggiini néegub yàlla jàkka mi nga xam ne suñ borom tabaraka wa nee na nee na ab néegam la ku fay dem wala ku fa nekk yan teggin nga war a sàmmonteel ak yan worma nga war a sàmmonteel ci barab boobu waxtaan wi nag insha allahu seddale nañ ko ci tambali bi danañ xamle lan mooy jàkka buñ noppee danañ wax ci ngëneelul tabax jàkka buñ wax ci solos jàkk ci lislaam wala màggaayu jàkk ci lislaam bu noppee wax teggin yi nga xam ne moom lañu war a sàmmoonteel ci jàkk bu noppee wax ay njuumte yoo xam ne mu ngi am ci jàkkata dëppawut ak war may jàkk dëppawut ak teggin yi lislaam santaane ne noonu lañu war a nekkee ci jàkk bu noppee nag tëjee ab tëjte boo xam ne ay joxoñ lay doon ak ay ay ay ndénkaan euh, mbokki jullit yi xam nañ ne jàkk bi nga xam ne néegub yàlla la naka jekk ci démbi lislaam ba ñuy door a taxawal jàkk ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ak ginnaaw buñ ko taxawalee ci diir bu yàgg ci ay at yu yàgg-yàgg naka jekk jàkka dafa masa am taxawaay bu mu daan taxaw ci lislaam dafa am liggéey bu mu daan liggéey ci dunduk jullit ñi ak ci dunduk xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam jàkka mas a nekk barab boo xam ne jullit ñi naka jekk dañ ci daan daje dañ ci daan daj waxuma la di daje rek ngir di fa def li gën a fés ci li ñuy def ci jàkka muy jooxe farata yàlla yi ci jàkka waaye dañ fa daan daje ngir di waxtaane lu jëm ci mbiri xeet wi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ci jamonoom bi mu tax bi mu tabaxee jàkk jooju nga xam ne moom la ñuy wax masjidu xubaa nga xam ne mooy jàkk ji njëkk a tabax ci lislaam danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi bi mu ko tabaxee ba noppi lépp loo xam ne lu jëm ci mbiru xeet wi la ci seenu dund moo xam seen dund koom-koom la wala seen dund social la wala seen dund politique wala seen dund xam-xam ak jàng ak jàngale loolu lépp ci jàkk ci lañ ko daan defe ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu doonoon jàkk doonoon loo xam ne daara la woon dañ ci daan jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan jàngale ci jàkka la daan jàngale jàkka yi doonoon barabu attewukaay nga xam ne jullit ñi buñ masaana am jafe-jafe wala ak ñàkk déggoo am ci seen biir bu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di àtte ci biir jàkk ñi leen di yóbbu àttee leen yëmutoon foofu waaye jàkk sax daa doonoon manis naa wax ne daa doonoon barab ba nga xam ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaan di bëgg a yabal ab arme ngir ñuy xeexi ci jàkk jale leen di dajale tànn ka war a jiite arme ba teg ko ci boppu mbooloo ma ñu déparé ci jàkka ya dëgg ma li fa nga xam ne fa lañ war a xeexee ci nga xam ne kon jàkka sakk na askar ya la woon niñ ko barab la li borom wax bi sallallahu alayhi wasallam, ne ko fil amr jullit ñi lépp looy defati muy loo xam lu jëm ci seen mbir la na nga ciy diisoog ñoom bu ma di ci la te dogal bu ñuy jëlit ca jàkka la jàkka ji lañ koy jëlee ñëpp yëgandoo ko ñëpp xam xamandoo ko ñëpp xam dogal bi lan la euh, kon jàkk naka jekk loolu la daan loolu la daan taxawee nga xam ne kon ab taxawaayam lu lu lu rëyoon la ab taxawaayam lu lu fesoon la loo xam ne yëmul rek ci ñu julli fa génn tëjaat jàkk ji demaat ba waxtu julli jotaat ñu ñëwaat waaye yooyu yëpp jàkk daf ko daan taxawe euh, bi yàlla dogalee nag ñun jullit ñi ak yaafus akuk doyadi dab ñu ci wàll yu baree baree bari loolu dem na ba tax jàkk taxawaay boobu mu amoon ak liggéey boobu nga xam ne moom la daan liggéey ci lislaam ak liggéey bi mu daan liggéey ci jullit ñi mel na it dafa xaw a deltu ginnaaw wala mel na it nam meloon nam meloon melu ko wala nam daan taxawe dëgg-dëgg taxewu noonu ba loolu moo waral kon waxtaane lu nu mel luy ama am solo la ngir ñu xam taxawaayu jàkk démb loolu it bu ñu ko xamee dana tax ñu xam ne taxawaayu jàkk ni lii lii la war a doon nii la war a demee nii la war a nii la war a doxe ci biir eh, ci biir xel eh, jàkk nag ci xamle dañuy wax ne baatu masjid ci kàllaam ak arab li muy tekki rek mooy barab bi nga xam ne aji sujud gi ci lay sujoote barab bi nga xam aji sujud ci lay sujjóote barab boobu moom la masjid ki julli fi nga xam ne fi lay teg jéewum buy sujjóot loolu masjid waaye nag baat bi dafa mujj maanaam moom mu amee ci kàllaam ak arab ñu mujj wëlbati mu mujj di tekki barab boo xam ne dañ koo waajal ngir di fa julli ak ngir di fa tudd yàlla ak di fa def ay jëf yoo xam ne jëf yu yàlla suñu borom tabaraka wa santaane la ak jëf yoo xam ne lislaam euh, daf koo daf koo santaane ñu wax ne baatub masjid bi nga xam ne moom lañu tudde jàkka dañuy wax ne li tax ñu tudde ko ko mooy julli ponk yi ñu ciy def ponk bi ci gën a tedd te gën cee màgg mooy sujjóot ponk yi ñuy def ci julli bi ci gën a màgg te gën cee tedd mooy mooy sujjóot loolu moo tax ñu ne ñu tànn ci julli jëf ji ci gën a tedd tudd ko li nga xam ne moom mooy mooy mooy jàkka loolu moo tax imaam bu mag bu ñuy wax imaamu Zarkasi mi ngi wax ne sujjóot doon gum doon jëf yi gën a tedd ci julli ngir ne jaam jamono ji muy sujjóot jamono boobu lay gën a jege boroomam loolu moo tax baatub masjid ñu xaroo ko ci jëf jooju nga xam ne mooy jëf ji gën a tedd ci ci julli wax masjid waaye waxuñu marka kon ci xamle bu gàtt jàkka loolu lay loolu lay tekki maanaam loolu lañ ci loolu lañ ci jublu. Euh, jàkk moomu nag mbokk yi tabax ko ak dundal ko nga ne lu rëy ngi ci tuyaabu ju rëy mi ngi ci joo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko digee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it feddali digee ko suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquranul karim ne baada auzu billahi min asheytaani rajim fii buyutin azina allahu an turfa ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يا suñu borom تبارك وتعالى من يوحنا نيجي wax ne néeg yi sunu borom tabaraka wa taala dafa joxe ndigal ci ñu di ko yëkkati dafa joxe ndigal ci ñi di ko yëkkati mooy dafa joxe ndigal ci ñi di ko tabax mooy jàkk kon sunu borom tabaraka wa taala moo joxe ndigal ci ñi di ko tabax ndax tabax jàkk ci la tàmbali dundal jàkk fi la doore dundal jàkk ab ab ab fi mu doore fi tàmbalee mooy ci mooy ci tabax jàkk ndax tabax bi mooy firndeel ak di màndargaal ne barab bi dañ koo waajal ngir mu doon néegub yàlla bu ñëpp xamee na barab bi dañ koo waajal ngir mu doon néegub yàlla nag loolu mooy jur li jàkka laaj ci dundalu maanaa ñu man di ko taxawee ci di ci di fa julli ci di fa tudd yàlla ci di fa jàng alxuraanul karim ak ci di fa def salaatu ala nabi ak di fa def mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne yu méngoog jàkka la yuñ mën a defe ci jàkka la kon tabax jàkka mooy tàmbali dundal jàkka moo tax suñu borom tabaraka wa taala digle ku dundal li nga xam ku tabax li nga xam ne moom mooy mooy mooy jàkk waxaatit ne moom yàlla suñu borom tabaraka wa taala jàkka day euh, ki koy dundal mooy koo xam ne ku gëm yàlla la euh, gëm bis tey julli di joxe asaka te rëgalut ku dul yàlla nee na kooku mooy dundal jàkk te kooku wala ñu sax ci ñi ci ñi jub ci ñi gindiku ci lañ bokk nga gis kon euh, dundal jàkka te dundal gi ni ma ko waxee léegi tàmbalee ci tabax ak la ca toppaat ginnaaw bu ñu ko tabaxee ca dundal gi jàkkalaat ci di fa jullee ak di fa jàngal xuraan ak ci di fa jaamu yàlla suñ borom nee na xeeti dundal yooyu ki koy def day mooy koo xam ne ku gëm yàlla la mooy dundal jàkk waaye ku gëm bis penc ak ku julli ñor mu di ko taxawe ak ku azaka ñor mu di ko taxawee nam ko war a taxawee ak koo xam ne rëgalul ku dul yàlla nee kooku mooy ki nga xam ne moom mooy mooy dundal yàq te yàlla nee na kooku ci ñi jub la bokk nga xam ne kon tabax jàkk màndargam jub la màndargam bëgg yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa ba tey ci wàllu tabax jàkka wax na ci ay wax yu takkoo takk eh, bokk na ci lim ci wax wax na ne man bana masjidan lillaahi bana allaahu lahu baytan fil janna misla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne tabax nga jàkka fii ci àdduna te yàlla rek tax nee na yàlla dana ko tabaxal ak kër gu mel ne gii mu tabax ko ci àjjana yàlla dana ko tabaxal ak kër foofee ci àjjana nga xam dana am kër kërug àjjana loolu wax yonent bi yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi it waxaat ci xadis boo xam ne Usmaan ibnu Affaan moo ko nettali ñoo ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama di wax ne képp koo xam ne tabax na jàkka te yàlla rek tax mu tabax ko yàlla moomu mu ko tabaxal tax mu tabax ko yàlla moomu dana ko tabaxal kër wala dana ko tabaxal ab néeg ci àjjan Abdullah ibnu Abbas wax ne jàkka yi day ci kaw suuf ñoom ñooy néegi yàlla dal ne jàkka yi day dañuy leeralal waa asamaan ni ni biddiw yi di leeralale waa suuf nga gis jàkka yi ne ci suuf ñoom ñooy leeralal waa asamaan ni nga xamee ne noon la biddiw yi ne ci asamaan di leerale waa suuf nga xam ne kon jàkka yi ci kaw suuf lu mu gën a bari lu mu gën a takk leerug ñooñu asamaan day gën a day gën a leer day gën a day gën a jolli waaye it day gën a day gën a day gën a kawe kon wax yàlla jooju ñu wax ak wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooju ñu wax ci tabax jàkk wone na ngëneel li nga xam ne tabax jàkk am na ko euh, tabax gi euh, dañuy wax ne mu doon loo xam ne yaa ko tabax yow si jëm bopp waaye ba ba ci bu fekkee da ngaa jàpp ca tabax ga sax bu fekkee da jàpp ca tabax ga sax dugal ci sa addi yi wala nga barkeelu ci sax li yàlla digee ci ku tabax jàkka loolu da ciy dugg ndax am na benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne da wax ne képp koo ne tabax na jàkk yàlla dana ko tabaxal kër àjjana doonte ne doonte ne sax lam tabax daa toll ne tàggum picc doonte lam tabax daa toll ne euh, maanaam tàggum picc nga xam ne loolu liñ ciy dégg mooy jàkk ji jàkk ji ñuy tabax lu ci waay def ci barkeelu lu ci waay def ci addiya eh, ngir ngir ngir ngir ngir dugal ko ci néegub yàlla bi ñuy tabax ak dugal ko ci néegub yàlla bi ñuy taxawal loolu yàlla diggee ci ku tabax jàkka dana la ko dana la ko fay bu ëllëgee yomal ka am te mooy dana la tabaxal ab néeg ci àjjana kon eh, tabax jàkka eh, ngëneel loolu la am tuyaaba jooju moo ci nekk yool boobu it la ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala diggee jàkk moomu nga xam ne tuyaaba ju rëy jooju moo am ci tabax ko tuyaaba ju rëy jooju ci am li ko waral mooy solo si jàkk am ak mag gi jàkk mag ak it rëy gi jàkk rëy ca yàlla loolu moo tax tabax jàkka tuyaaba jooju am ci jàkka soloom ak yitteem ci lislaam day feeñ ci ay anam yu bare bari ak ay anam yu takko takko eh, bokk na ci eh, màggaayu jàkka ak solo su jàkk ci lislaam mooy jàkk day mbokk yi mooy barab bi yàlla gën a bëgg ci kaw suuf barab yi ci kaw suuf te barab yi ci kaw suuf takku na lool suuf lu ne ci kaw ay garab a ngi ci ay doj a ngi ci ay kër a ci lu ne ngi ci kaw suuf waaye li ne ci kaw suuf te lépp yàlla bindu ko sakku yàlla nee na lim ci gën a bëgg te gën ko cee sopp te yàlla lim sopp bari na waaye nee na lim ci gën a sopp te gën ko cee bëgg nee na moom mooy mooy jàkk loolu doy na sëkk màggaay doy na sëkk tedd nga ndax yàlla suñu borom tabaraka wa taala du sopp lu soppuwut du bëgg lu bëgguwut du màggale lu mag te nee li ci kaw suuf lépp lim ci gëna bëgg moy moy jàkk motax ñëw na ci hadith bo xamné mi ngi sahih muslim sayidna abu hurayra moko netali wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nee ahabbu al bilaadi ila llaahi masajiduha wa abghadu al bilaadi ila llaahi aswaquha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee pak yi ci kaw suuf yi ci yàlla gën a sopp te gënal ci yàlla nee na mooy ay jàkkaam ndax jàkk yi nag yàllaa ko moom ndax jàkk néegub yàlla la nee na loolu la ci yàlla gën a sob waaye nee na lim ci gën a bañ nag te gën ko ci sib nee na mooy marché yi ndax marché yi xam ngeen la fay xew jaxasoo ba fay am waxtaanu adduna wa lijjanti ci mbiri adduna yëngu adduna ba fay am te yàlla lenn ni adduna bëgg ko lépp luy adduna lu ne dagoo sib loolu moo tax eh, barab yi yàlla gën a sikk ci kaw suuf moom mooy marché yi waaye barab yi mu gën a sopp ci kaw suuf moom mooy jàkk yi loolu kon benn tegtal la buy tegtale màggaayu jàkka ak ngëneelu jàkka ci lislaam ak ci yàlla suñu borom tabaraka wa waaye bokk na ci yiy wane màggaayu jàkk ak gëneelul jàkk moo dina jàkk néegu yàlla la néegu yàlla la mooy jàkk kenn moomu ko ki ko tabax moomu ko ña ko jàppale ca tabax ba moomuñ ko ñiy dundal jàkk ci di fa julli sax moomuñ jàkka ji waaye jàkk ci boppam néegub yàlla néegub yàlla yàlla suñu borom tabaraka wa moo moom ak moomeelam la moom yàlla suñu borom tabaraka wa wa wa taala moo tax ci alquran suñu borom sax suy tudd jàkk rek da koy da koy da koy laax ci turam da koy làq turam maanaam da koy da koy askanale ci aw turam moom yàlla suñu borom tabaraka wa taala euh, wax na ci suratul jinn ne wa anna al masajida na jàkka rek ko moom lillah waaw waatu lillah kon xam ne ne lii ci xarfu jar la boo xam ne li muy tekk mooy ak moomeel mooy jàkka yi yàlla suñu borom tabaraka wa taala moo ko moomeel bokk bokk ko kenn ba tax na mu ne kon mu ngeen demee ci jàkka la lu ngeen fay def rek na doon loo xam ne lu yàlla rek moom la mooy bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen bokkaalee yàlla ak dara bokkaale yàlla ak dara sax yàlla da ko tere fépp waaye na ci jàkk bi nga xam ne sax moom ak moomeelu boppam la waaye na ci jàkk mi nga xam ne sax ab néegam la boo xam ne moom moo ko moo ko moom ba tey it waxaat na ci alquranul karim ne wa man azlamu mimman manaa masajidallah ay yuskara fiha smu wax na ne ana moo gën a bon ana kan moo moo dàqatooñ koo xam ne day tere jaame yàlla ñuy dundal néegi yàlla day tere jaami yàlla yi ñuy dundal néegi yàlla yi mooy day dox day dox diggante nit ñay dem ca jàkka ja wala bu doxul diggante nit ñi dem ca jàkka ja bu nit ñi demee ca jàkka ja dañu war a dundalee jàkka ja nañ fa war a nekk it da leen koy xañ te loolu danañ ci ñëw ci kanam ci ci ci ci xeet yi e, pexe yi nga xam ne noonu yeeg da leen di jàppale ñu ngi koy teg ngir xeex jàkka ak ngir dox diggante jullit ñi ak jàkka ba nañ ko war a dundalee dëgg-dëgg duñ ko duñ dundalee noonu waaye foofu li ñu ci yitteel rek mooy borom bi ko dafa taala bi mu waxee baatu baatub masaajid daf ko laafale daf daf cee laaf turam loolu di wane ne it jàkka moom moo ko moom. aay bi ñu jàngoon léegi ci tàmbali bi it gis ngeen innama yamuru masajidallah la wax jàkka yàlla yi nga xam ne waxtu ne buy wax rek euh, euh, turam la koy laafe loolu li wane ne kon ak ak moomeelam la waaye jàkka ab néegam la boo xam ne moom mokkum kon loolu it li luy wane màggaayu jàkka la mooy ginnaaw bu mu doonee li yàlla gën a bëgg ci kaw suuf it néegub yàlla la lu yàlla moom la waaye bokk na ci màggaayu jàkka yi mbokk yi moo di jaamu yàlla gi nga xam ne moom la yàlla gën a fonk te gën koo bëgg muy julli ci jàkka lañ koy def jaamu yàlla gi yàlla gën a fonk te gën koo bëgg ci jàkka lañ koy def muy julli xam ngeen julli mooy jaamu yàlla gi gën a mag ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe asalaatu a'zamul ibadat te yeneen ponk yi ci des mooy aj di azaka di koor gi nga xam ne Eh, ci la ñu nekk nga xam ne ponk lislaam yi nga xam muy muy juróomi ponk ponk bu ci gën a màgg te gën caare yi mooy julli nga xam ne mooy ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe bu ëllëgee yomal xam mooy li ñuy njëkk xisaab jàmm mooy jëfam jëfam lañ ciy njëkk rek li mooy julli bu baaxee lépp bu baax bu fekkee bon na rek dara du dara du baax julli moom fan lañ koy defee ñu ngi koy defee ci ci ci jàkk nga xam ne loolu yëpp day joxaat jàkk beneen beneen màggaay da koy joxaat beneen warma mooy ginnaaw bu mu doonee néeg li yàlla gën a bëgg ci kaw suuf li yàlla gën a bëgg yi ci lim santaane yi foofee lañ ko koy defale mooy ci jàkk loolu it euh, màggaayu jàkk lay wane ak ak euh, bokk na ci li wane solos jàkk yi mbokk yi ak bu màggaayam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bi mu jógee Makka gàddaay dem Madina lu mu njëkk a def lu mu njëkk a sottal mooy tabax jàkk du tabaxut néegu boppam boo xam ne dafay dal moom moo waa këram ak njabootam tabaxut santaanewul ne dañ tabax ab marché boo xam ne fa la ñuy jaayee jaayante fi jëndante santaanewul ñu tabaxit ab barab boo xam ne ab ab ab ab parlement lay doon boo xam ne jullit ñi dañ fay daje ngir di waxtaane seen mbiri bopp déedéet waaye lam lam njëkk a tabax mooy jàkk loolu day wane ne jàkk moom lu ko gën a màgg amul day day wane it li li jàkk di jëmmal ak li muy màndargaal ci dunduk jullit ñi ak li muy màndargaal ci lislaam ci boppam ci ne moom mooy lépp jullit ñi sax moom jàkk mooy lépp jullit ñi waaw moo leen moo leen moo leen moo leen di dajale moo leen di bennale mooy tax ñu xamante mooy tax it liñ séq ñu mën di ko waxtaane liñ séq ñu mën di ko ñu mën di ca eh, ñu mën di ca diisoo eh, loolu moo tax jàkk jooju nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi njëkk tabax bi mu demee madina muy masjidu xuba eh, sunu borom tabaraka wa taala nettali na ko ci suratu taw wax ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin yalla sun borom tabaraka wa taala wax ak yonent bi waat dal ne ko giñ naa ne giñ naa ne jàkk ji nga xam ne moom nga njëkk a taxawal bi nga ñëwee madina te ñu taxawal ko ci ragal yàlla nga xam ne rek a tax ñu taxawal ko jàkk jooju day moo gën yey ci nga jaamu fa yàlla moo gën a yey ci nga dundal ko moo gën a yey ci nga taxaw fa ndax jàkka joo xam ne kat ay góor yàlla fa nekk yoo xam ne dañoo bëgg lool set dañoo bëgg loolu laab te yàlla daa bëgg ña laab yàlla daa bëgg ña daa bëgg set kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, jéego bi mu njëkk a def bi mu demee Madina mooy tabax jàkka loolu day wane solo soo xam ne jàkk am na ko day wane it màggaay boo xam ne jàkk am na ko waaye bokk na ci solos jàkk mbokk yi moo di ne jàkk ci boppam ni ma ko waxee léegi mooy lépp jullit ñi jàkk mooy barab bi nga xam ne barabu jàngukaay la mooy barab boo xam ne barabu yarukaay la mooy barab boo xam ne barab bu ñuy yéwee na la diggante ay nit ñu am jafe-jafe la mooy barab boo xam ne bu ñuy attee la sax waaye mooy barab boo xam ne fa la ñuy nose sax fa lañ daan nose lu jëm ci kaaraange jullit ñi lu jëm ci seen wàllu kaaraange lu leen di sàmm ak lu leen di ak lu leen di lu leen di lu leen lu leen di wattu nga xam ne kon loolu rek doy na sëkk ci xamle solo si jàkk mooy mooy lépp jullit ñi lépp lu ñu daan def rek ci démb lislaam lu ñu ko daan def ci jàkk lañ ko daan defee ci jàkka lañ ko daan lañ ko daan sottali loolu it eh, day wane rek loolu it li muy li muy wane rek mooy li tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee Madina jéegi li mu njëkk a def muy tabax jàkka day wane day wane day wane solo si jàkk am mooy day wane ne lépp jullit ñi rek mooy jàkk mooy jullit ñi li ñuy def lu rek ci eh, jàkk lañ koy def kon yooyu day wane màggaayu jàkk ci lislaam ak solos solos jàkk solo su nga xam ne jàkk am na ko nag ak màggaay boobu mu am ni ko jullit ñi xame noonu la ko nooni jullit ñi ak nooni lislaam xame ba tax mosuñoo tàyyi musuñoo toq benn yoon ci di dox diggante jullit ñi ak jàkka ak di dox diggante jullit ñi ci ñuy dundal jàkk nañ ko war a dundale noonu yi moom loolu musuñ cee musuñ cee tàyyi musuñ cee toq la ko dale ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ba muy door a tabax jàkk jooji di masjidu xubaa boobee la pexe yi tàmbale xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tabaxee jàkka ji naafeq yi dañoo dem tabax seen tabax tabax barab boo xam ne dañ ko tudde jàkk muy masjidu diraar masjidun diraam jàkka joo xam ne la la taxoon ñu tabax ko ñoom ñoo ko tuddee jàkka waaye du sax jàkk ndax jàkka du du ñu fa defee lu mel ne la lañ fa doon defee ñoom mooy mooy mooy tabax barab boo xam ne la tax ñu tabax ko mooy di nos ay pexe ngir nuñ faagaagale jullit ñi ak nuñ boolee jullit ñi noon yi ba noon yi di am di am ndam waxtu wu ne ci jullit ñi ak di jekk jullit ñi waxtu wu ak euh, di di di di di di leen di leen di leen tëral ay pexe nga xam ne kon ñoom xamoon nañu solo si jàkk moo taxoon bi yonent bi tabaxee jàkk ñoom ñu ñu ñu ñu tabax loo xam ne dañ koo tuddee jàkk ngir wëlbati jullit ñi si jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñoom ñu dem fañ nekk ñoom ba mën leen a fekk ci pexe yi ñuy pexe yi ñuy nos waaye jàkk jooju xam ngeen ni ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala tuddee ci alquranul karim mooy eh, jàkka la joo xam ne eh, jàkka juy juy juy juy lore la jàkka juy juy juy deq juy deqalee la jàkka juy lore la waaye jàkka la joo xam ne jàkka juy jàkka juy deqalee la mooy masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan wa tafriqan bayna almuminin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wala yaxlifuna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum innahum la kaasibun Euh, pexe yooyu nga xam ne noonu yi ñu ngi koy def ngir dox diggante jullit ñi ak jàkk musta taxawit nag jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na waaye bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee yi pexe yooyu dafa dafa wéy dafa continuer waaye nag dafa dafa dafa dafa am ci ay anam yu wuute dafa am ci ay anam yoo xam ne anam yu euh, anam yu wuute la gis nañ ay jàkk yuñ màbb ay jàkk néegi yàlla yoo xam ne màbb nañ xam ngeen ca andalus bi ko muy Espagne tey bi ko jullit ñi ñàkkee ba tubaab yi teg teg fa loxo jéego yi njëkk def bokk na ci jàkk yi nga xam ne ñoo ko nekkoon ñu ñu màbb ko daaneel nga xam nañ solo jàkk ci dundu dundu jullit Algérie gi nga xam ne jege nañu lool it bi fi tubaab yi bi fa tubaab yu duggee muy français yi lañ doon yàq réew ma bokk na ci di màbbu yàq ya nga xam ne ñoo fa euh, ñoo fa ñoo fa ñoo fa nekkoon kon loolu it anam la ci xeex jàkk ak ci dox diggante jullit ñi ak jàkk waaye gis ay jàkk yoo xam ne jàkk yuñ tëj la yuñ tëj tere jullit ñi ñu ñu julli fa tere jullit ñi ñu fay joxe faratas yàlla suñu borom tabaraka wa taala loolu it ci xeex gi ñuy xeex jàkka la ak dox diggante jàkk ak jullit ñi gis na yit ay ay jàkka yoo xam ne dañoo dañoo tere ku fa yëkkati nodd ci réewi tubaab yi am na ci réew yoo xam ne maanaam nodd ca kaw ci micro yi ñu di ko dégg dañ ko fay tere maanaam nodd ca kaw ñu ñu di ko dégg dañ ko fay dañ ko fay tere loolu it anam la ci xeex ci xeex jàkk gis na it ñu tere ñu tabax ay sooroor ci jàkk yu gis nañ suñu sira bu yàggul rek 2009 wala 2008 gis ngeen coow lu rëy la fa amoon euh, ci jàkk yañ fay tabax daal dañuy interdit ku fa tabaxate ay sooroor mooy jullit ñi mën nañuy tabax jàkk waaye nag sooroor moom du amati moom na nekk euh, jàkkay terrasse nii rek waaye bu am sooroor nga xam ne coow lu bari la indi woon bu mujj sax dañ dañ koo def référendum laaj laajte waa dëkk ba seen xalaat ci ndax ànd nañ ci jàkka yi di am sooroor wala wala ñàkk nañ caa wala wala ànduñ référendum ba mu jàllee résultat yi la mu mujj jur mooy ñu ëpp ca waa dëkk ba dañoo ànd ci jàkka buñ ca defati buñ ca defati soro loolu it ci ci xeex lislaam la waaye ci xeex lislaam ci jaare ko ci bunt boo xam ne xam nañ ne bunt bu am doole la ci eh, lislaam muy muy muy muy muy jàkk ngir jeexit ji nga xam ne jeexit ji nga xam ne am na gis nañ tamit ay jàkk yu ñu bu yëgul rek li xewoon ci New Zealand jàkk yu ñu attaque loolu it faaw ñu di ko bàyyi xel maay mooy fi ne ñiy def attaque dañuy tànn barab yi ñu koy def ngir ngir la barab ya di symboliser eh, ak la barab barab ya la muy jëmbal ci lislaam ci def attaque bu yàggut ay ay jàkk la attaque fekk ay julli yu julli ajjuma eh. ci biir jàkka ja mu mu mu mu rey ci ab lim bu baree bari ab lim bu takkoo takku ci reyin woo xam ne reyin wu ñaawa ñaaw la ci reyin woo xam ne reyin wu jéggi dayo la wu wu bona bona bon la te te te te kiimaan nga xam ne loolu it ci anam yi ñuy xeexe jàkka la ci bëgg a loo jullit ñi rek bëgg a ragalloo jullit ñi ci bëgg a ragalloo jullit ñi ci néegub yàlla mooy ci ah néegi yàlla ngeen yee ngeen di dem ngir ne dafa da ngeen fay jaamoo yàlla kat ak ngir ne da ngeen fay jullee gi mel noonu amatul sécurité kat bu boo seen kër yi lu ngeen di def ngeen defe ko fa te bañ a dem ci yàlla loolu benn forme la ci ci forme yi ñuy xeexe jàkk ak yi ñuy doxi diggante jullit ñi ak ak jàkk gis nañ tamit ay ay ay jàkk yu yu yu ñu transformé ne dañ koy def ay place place publique fii ci Sénégal loolu am na Saint-Louis yii gis nañ fa ay jàkk yu ñu màbb yoo xam ne dañ ne la tax ñu màbb ko mooy dañ ne fa mu nekk daa maanaam fa mu nekk daal place publique la boo xam ne euh, lañ fa war a def mooy jardin public lañ fa war a def wala ñu wala ñu def fa balaa barab boo xam ne barab bu ñuy féexloo la wala barab boo xam ne dañ fay dem di fa di fa noppaloo gi mel noonu wala leen loolu xam ne kon anam ñu ne rek euh, ñi ngi koy def ngir ngir ngir xeexe ko jàkk ak ngir dox euh, diggante euh, jullit yi ak ak li nga xam ne moom mooy mooy jàkk waaye ànd ak loolu lépp nag téewut moom Euh, jullit ñi ba léegi moom ñi ngi ñi ngi dundal jàkka ba léegi ñi ngi ñi ngi dem ci jàkka ba léegi fa tabaarakallaahu fu woote bi yàlla jibe ci jàkka yi danañ dem euh, danañ dem danañ dem wuy ci loolu it li ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa soññ gum ñu soññ ci dundal jàkka ak ci di taxaw jàkk yonent bi sallallahu alayhi bi bi mu ñu xamalee solo si jàkk am ba noppi it te solo soosu ñu war koo xam ñun julli ñi te noonu ñu xam ko ba tax ñuy pexe pexe yooyu daf ñoo soññ ci ñu di ko dundal euh, bokk na ci fi mu ñu soññee ci ñuy dundal jàkka mooy hadis bi nga xam ne Abu Darda nettali na ko euh, wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. Euh, képp koo xam ne def na jàkk muy këram mooy képp koo xam ne bokk na si ñuy dundal jàkk ci di fa julli ci di fa jàngal alxuraanul karim ci di fa tudd yàlla ak di fa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana doon kaaraange li koy aar bu ëllëgee yomal xiyaam ba du gis lu muy tey nee na jàkk jàkk jàkk moom mu doon dundal dana tax bu ëllëgee buy jékki siraat jéggi ki dana doon lu yomb ci moom dana doon loo xam euh, lu du doon lu jafe ci moom nga xam ne loolu ab soññee la ci ci dundal ci dundal jak ci di julli ci di fa tudd yàlla ci di fa def xeeti jàmm yàlla yi nga xam ne moom lañ bëgg ko fa def waaye it ci soññ gi mu ñu soññ ñuy dundal jàkk yi yonente bi sallallahu alayhi wa ci xadis boobu nga xam ci lay waxee juróom-ñaar ñi nga xam bu ëllëgee yemal xiyaam ci bis ba nga xam ne kenn amut ker ku ko yàlla keral dafa am juróom-ñaar ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu ëllëgee ñooñu yàlla dana leen keral juróom-ñaar ñooñu bi mu leen di tudd wax na ne bokku na ci yàlla di keral ko xamne wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid ko xamne xolam dafa aju ci jàkk xam dafa bëgg jàkk diko dundal diko taxaw diko dundal ci maana diko dundal ci dundal biir waaye di ko dundal dundal dundalu kaw yàlla suñu borom tabaraka wa taala kooku ci ñi muy keral bu ëllëgé ci bisu tàngoor woowee nga xamne dañuy xëc ci jant bi bam jege nit ñi loolu bu ci nekk di lapp ci aw ñakam bis boobu yi ku ku bëggoon jàkkata fonkoon jàkk duñ ko dundal dana mucc ci fitna jooju waaye dana mucc ci li nga xam ne moom mooy euh, mooy tàngoor woowu yonent bi sallallahu alayhi ci wàllu dundal jàkk yi waxaat na ci wax ne laa jaara laa salaata li jaaril masjid illa fil masjid wax ne koo xam ne dafa dend ak jàkk ji xam ne buñ noddee mi koy dégg sës jàkk ji lool fu ñu taxawalee mi ngi koy dégg fu ñu jullee mi ngi koy dégg nee kooku de ak julleem lu mën a baax lu dul ne la muy julli ci jàkk ji la koy jullee koo xam ne yaag jàkk ji yéen a dëkk yaag jàkk ji yéen a yéen a sësu ñee ñi dundal ji kenn warul la ca jiitu ña kenn warul la faa jiitu nekk ci ay yitte ba mu ba mu ba mu dem ci jàkk ji ndax yitte joo mën a ne rek baatub yàlla ko gën a kawe jullee ko gën a kawe te te te ndigalul yàlla dalaa war a tax a bàyyi sa yitte dalaa war a tax a bàyyi sa mbiri sa mbiri bopp rawatina sax bu dee julli nag boole si nga xam ne ni ko Sëriñ Tuubaa képp koo xamante ne nii ne julli tax na mu dagg ay yitteem dana jariñu ci julli ga waaye dana jariñu ci yittee képp koo xam ne nag julli jaralu ko dagg ay yitteem bu demee julli ci it du jariñu ci julli ga du jariñu ci yitte man yaas bi la mooy lépp kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci soññ yi mu ñu soññ ci ñuy dundal jàkka yi daf ñoo xamal nañu ñi nga xam ne ñoo ñoo sësoog jàkka yi te dend ak jàkka yi nañ doon te ñuy njëkk a dundali jàkka yi nañ doon ci ñu koy ñu koy njëkk élèves yu doy waar te yéem a ngay gis gis ñoo xam ne seen kër ak jàkk ji ñooy sësoo te ñuy jullee ci jàkk ji doo leen fa gis lu kii maa ne sës jàkk ji fu ñu nodd yaa koy njëkk a dégg fu ñu liqaama yaa koy njëkk a ñu taxawalee yaa koy njëkk a dégg te doo te doo dem te doo dem te dem julli ci te xëy na ci yeneen yitte nga nekk te yitte yoo mën a nekk lu mu baax baax it jullee ko gën a rëy jullee ko gën a mag <coughs> kon loolu it mbokk yi lu mat a bàyyi mat a bàyyi xel la xam ne jàkk yi nag bu ñu koy tabax yéem rafetaay ba taxut ñu di ko tabax yéem jàkkaay ba taxut ñu di ko tabax waaye dañ ko tabax ngir ñu ngir ñu di ko dundal ngir ñu di fa julli ngir ñu di fa kon loolu it lu mat bàyyi xel loolu moo tax mbokk yi saxaaba yi ridwanullahi taala alayhi ñoom ñu doonoon ñoo xam ne dañoo xéroon lool ci dundal jàkk ak ci di ko taxawe bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee na yonent bi doon dundalee jàkka ak na mu ko doon taxawe <clears throat> ñoom noonu it lañ ko noonu it lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko taxaw te gis ngeen li ñu njëkk a def mooy Seydina Abubakar na Seydina radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moo nekkoon xalifa jullit ñi euh, bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tawatee te ci biir tawat ji mun doon julli si mu wax ne na Abubakar ni Siddiq jiite bu fi yonent bi jógee yi loolee lañ ko mooy mooy samp bi yonent bi Abubakar ci ci ci ci ci gi ko sant samp muy jiite jàkk ji loolu dañ koo dañ ko dañ koo wéyal dañ koo wéyal ne yonent bi doon dundale jàkk ji ñu wéyal ko doon kon loolu it day màndargaal euh, fonk guñ fonkoon guñ fonkoon jàkk euh, fii ci Sénégal it Euh, ci wàllu dundal jàkk ak toppatoo ko ak fonk ko bu ñu ci tuddee Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala dana doy sëkk nga xam ne moom moom doy ci doy na sëkk misaal ci fonk jàkk ak dundal jàkk julli juróomi ci jàkk rek la ko daan jullee julli juróomi ci jàkk rek la ko daan jullee aw ko jullee feneen euh, Sëriñ Mbàkke Buso radiyallaahu taala anhu wax na ne wax na ci xasida googu nga xam ne ci lay setale Sëriñ tubaa mooy xasida kullil amiri bi muy setal sëriñ bi ci tuuma yi ko tubaab yi tuumaal wax ne sëriñ bi ak ñi mu àndal ak fi mu bokk xamuñ dara lu dul ñett yi muy dem ci jàkk ak ak jàngale ak liggéey yooyu rek lañ xam nga xam ne bi muy wax bi muy wax yiñ yiñ xamee sëriñ bi ak lii bi la mu jiital mooy dundal jàkk laa na siwaa gishaani masjidihim aw darsi alwaahihim wal xarsu bil bil jarab loolu it euh, <coughs> euh, tegtal la ci ak fonkam jàkk moom sëriñ bi radiyallahu taala tax na mu ñaan boromam ne ko yow sama sama sama sama kër yëpp na mu ko def muy ay ay jàkk muy masaajid wajaal bu yuuti kullaha masaajida loolu it eh, doy na doy na doy na doy na sëkk ak fonkam jàkk yi ñëpp dañ koo xamoon ba mboolem ñu ko tagg ñu baree bari eh, wax nañ ñu mu daan dundale jàkk ak ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni mu ko ni mu ko fonke kon eh, loolu it mbokk yi lu ma ta bàyyi xel la ci ne jàkk nañ koo war dundal Euh, bu ko defee nag bu ñëwee ci tomb bi nga xam ne nag moom mooy xolub waxtaan wi mooy euh, war may jàkka <coughs> te di li ëpp solo wala ci li ëpp bokk na ci li ëpp solo ci waxtaan bi mooy mbokk yi jàkka ay war maam euh, la ci jiitu mooy booy dem ci jàkka nga waaj waajtaay wu ma sëkk woo xam ne dana dëppoo barab bi nga jëm dana dëppoo war may jàkka mooy nga sol sol bu baax laal parfum amee xet bu neex boo xam ne euh, buy méngoog barab ba nga xam ne ca nga ca nga jëm la ndax barab bu nekk ak la méngoog moom barab bu nekk ak la méngoog moom te borom bi tabaraka wa la daf ñoo soññ ci alquranul karim ne wala daf ñoo digal sax ne xuzu zinatakum ku kulli masjid na ngeen di jël seen taar maanaam na ngeen di taaru na ngeen di defaru ci inda kulli masjid masjid sax foofu lu muy tekk mooy salaa lay tekk moom julli lay tekk maanaam sa su ngeen dee julli rek na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen waaj waajtaay bu mat sëkk woo xam ne dana dana dana dana dëppoo ki ngeen bëgg taxaw ci kanamam ngir déyalee moom mu yàlla suñu borom tabaraka taala rawatina nag julli gi bu ngeen ko dee defee ci foo xam ne nag néegub yàlla nga xam ne loolu moom day day day day laaj ñaari waajtaay mooy waajtaayu néeg nga jëm ak waajtaayu jaamu yàlla nga la fa yóbbu da nga war ko faa def nañ bàyyi xel ne teggi jàkk li ci jiitu mooy bay dem bay dem ci jàkk ji nga waaj waajtaay bu mat sëkk sol sol bu bu gu baax gu dëppoog jàkk ja nga jëm gu dëppoog barab bi nga xam ne ci nga jëm mooy néegub yàlla bi euh, li ñuy gis léeg-léeg muy xew ci jàkka yi dëpp wutagoon mooy jàkk dem ci jàkka sol yëre bu gàtt boo xam ne boo sëggee sa ginnaaw gi day feeñ gis nañ muy am loolu bokkut ak war mooy jàkk maanaam sol simis bu gàtt wala wala wala tiset bu gàtt boo xam ne boo sëggee Euh, li ci ginnaaw day fay loolu bokkut ak war mooy jàkk dëppwut ak war mooy jàkk loolu kon nañ koy nañ koy may ko xam ne jàkk dafa am yére yu yàlla moom dafa am yére yoo xam ne yu méngoo moom bokk na ci war mooy jàkk yi bokk yi booy dem nga ànd akuk dal akuk wegeel waaw ndax eh, yàlla booy wuy ji ab wooteem wuy ji wooteem yàlla warut a ànd ak parax parax ak yëngatu bu bari dem ci néegub yàlla yi warut a ànd ak parax parax ak yëngatu bu bari moo tax bu ñuy ñëw ci jàkke yi nga xam ne dañoo war a ànd akuk dal war a ànd akuk wegal loolu moo tax yonente bi salaa sallam wax na ci xadis ne bu ngeen dee dem ci néegu yàlla bi na ngeen ànd akuk dal na ngeen ànd akuk wegeel bu leen daw bu leen xelu it waaye na ngeen na ngeen na ngeen ànd akuk dal dal ne bu ngeen bu ngeen bu ngeen demee lu ngeen fa fekk ci julli ga ngeen xam ne loolu loolu ngeen ci fekk loolu loolu ngeen fekk la leen saraw ngeen ngeen ngeen ngeen fay la leen saraw ngeen ngeen fay loolu yéen nañ ko bàyyi xel bokk na ci war ma jàkk yi boo ñëwee ba ci jàkk ji di dugg nga jiital sa tànkum ndeyjoor loolu it ci yi ñu santaane la nga jiital sa tànkum ndeyjoor jàng ñaan gi muy allahumma tax li abwaaba rahmat loolu ci war may jàkk la bokk booy génn it nga jiital sa tànku càmmoñ jàng ñaanam allahumma iftah li abwaaba fadlik ci war may jàkk la bokk na ci war may jàkk yi mbokk boo duggee ci jàkk nga nuyu borom jàkk ji def la ñuy tuddee tahiyatul masjid ndax euh, kër gu ne daa am borom wala néeg bu ne daa am borom te kër gu ne boo fa duggee xanaa borom kër ga waruñ koo nuyu jàkk néegub yàlla la yàlla moo tax boo duggee ci jàkk ci waxtu yi nga xam ne tere wuñ ko ca la dañ lay wax ne la balaa ngaa toog wala bala ngaa nuyu ña nga fekk ci jàkka ja sax na nga nuyu borom jàkka ji ba noppi def ñaari rakk ci mazhab Malik dafa am waxtu yoo xam ne des ci naafila mooy bu ñu jullee bu ñu jullee suba ba nopp ba keroog jant bi di yëkkati diggante boobu moom boo ci duggee boo ci duggee ci jàkk doo ci nafila xanaa lu dul ne ñaari rakkay faj waaye suñu nafila bu ñu julee takkusaan ba noppi waxtu wi nii ba keroog timis di jot waxtu boobu dañuy tere ko ci nafila kon ñaari waxtu mooy waxtu yi ñuy tere ko ci nafila lu dul ñaari waxtu yooyu saa soo duggee ci jàkk rek bala ngaa toog bu fekkee da am yéene sax ca jàkk ja da bëgg a toog jàkk ja ngir jàng fa alxuraan wala da nga fay toog ngir jàng xasida wala da nga fay def da nga fay toog ngir def ay awraat am ay awraat yooyu def bala toog na nga julli ñaar rakk loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la santaane moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne euh, isa daxala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn képp koo xam ne dugg na ci jàkk bala moo toog na julli ñaari ne julli ñaar rakk euh, bokk na ci warma yi ñu war a sàmmanteel ci jàkk yi mooy dañ xam ne jàkka yi dañuy tere ko fa jaay ak jënd dañuy tere kuy jaay ci jàkk ak di fa jënd jàkk du barab bu ñuy jaaye du barab tamit boo xam ne bu ñuy bu ñuy jëndale wala barab boo xam ne dañuy dañuy waxaale sax ngir jënd nangam wala dañuy waxtaan sax ngir jënd nangam euh, jàkka du du barab boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis na bu ngeen gisee kuy jaay ci jàkk wala muy jënd na ngeen ko wax ne ko yàlla bu yàlla bu nu fiisal sam njaay sa njaay mi yàlla bu mu am bu nu fiis nga xam ne ko loolu it dañ ko bàyyi xel mooy xam ne jaay jàkk dañuy tere ko ko jaay dañuy tere ko ko jënd bokk na ci war may jàkk it mbokk yi mooy dañuy lu réer dañuy tere ku fi yéene lu réer bu fekkee dafa am loo réer le suñu ñëw ci jàkk ji naan réer le naa mbir sàngam wala wala xaalis sàngam di ko yéene jàkk yee loolu lañ koy tere loolu koy tere bokkut ak war may jàkk bokkut ak tey gi nga xam ne moom lañ sa naan di jàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne képp ku ngeen gis muy yéene euh, lu mu sànkule wala lu mu réer li ci jàkk ni ngeen ko wax ne ko loolu nga réer la yàlla bu mu feeñ da ngeen ko wax ne ko loolu nga réer la yàlla waaye ñuy leeral foofu rek ne yéene yéene lu réer bokkut ak lu réeroon feeñ ñu ne ku réer la woon nangam ñaar yooyu bokk bu dee dafa am luñ for ci jàkka ji loo xam ne xamuñ xamuñ borom man na mën nañoo wax ne ah for nañ nangam ci jàkka ji ana kooku moom kooku moom mën naa ñëw boo waxee mandarga ñu dox ko loolu moom kenn terewu mooy for ñu for dara yóbbu ko ci jàkka ñu yéene ci jàkka ji ne ku réer la nangam loolu bokkut ak dem ci jàkk ji ne damaa am lu ma réer li ko for nangam ñaar yooyu it man naa mën na mën naa teqal kon bu njëkk bi moom dañ koo tere mooy yéene lu réer ci jàkka waaye lu feeñ ñu naan feeñ ne loolu moom mënees na ko waxee ci jàkk bokk na ci war may jàkk yi jàkk bu ñu xasee noot ba nga dem te julli rek tax laa jóg suñu génna génnaat muy bul génnaat di demaat di demaat feneen bu ñu xasee noot ba nga ñëw ci jàkk ji toog ngal la xaaral ba julli gi ñu noddal ñu julli ko ba noppi nga door a génn dem waaye buñ buñ buñ buñ buñ nodd ci jàkka ji julli gi tax a lu dul ne a tax lu dul lor a lu mel ne am toj dalaa dab wala yoo xam ne ju ju ñor la bu boobaa moom mën nga waaye lu dul moom bu ñu xasee nodd ci jàkka ji julli gi ñu noddal na nga ko julli ba noppi door a génn bokk na ci war mooy jàkka yi bokk yi mooy nañ xam ne Euh, jàkka dañ ko dañ ko war di setal ak di ko di ko toppatoo ngir mu bañ di tilim euh, loolu it lu ma tax xam la mooy jàkka dañ ko war di setal euh, di di ko toppatoo wax nañ ne loolu ñu ngi ko ñu ko ñu ngi ko jële ci wax ji suñu borom digaloon yonent yàlla ibrahima yonent yàlla ibrahima bi ko yàlla joxee ndigal ci mu yëkkat ci ci mu ci mu tabaxaat kaaba bi bu nopp daf ko wax ne ko wa tahir baytiya li taayifiina wal aakifiina wa rukka'i sujuud dafa ko ne ko sama néeg bi na nga ko laabal na nga ko setal ngir ñi nga xam ne ñooy ñëw di wër ak ñi nga xam ne ñoo fiy sax ak ñi nga xam ne ñooy ñëw ngir di julli ñu ne kaaba gi ni mu doone néegub yàlla yi jàkk yi ci kaw suuf yépp noonu lañ néegi noonu lañ nekk néegub yàlla nga xam ne kon ndigal la yàlla jox ne yonent yàlla ibrahima ci mu sa ci mu seetal néegam ba ndigal loolu yi moom la jox mbooleem ñi nga xam ne ñooy saytu jàkk yi ñuy seetalaale jàkk xam ne kon jàkk nañ ko war a seetal waaye jàkk yi war gi ñu ko war a setal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci xadis boo xamante ne nii ne euh, mi ngi ci saxeex muslim xadis bi yonent bi wax ci ne euh, képp koo xam ne génne na lor maanaam ab tilim tilim képp koo xam na ko ci jàkka yàlla dana ko tabaxal ab nit ci àgg ab tilim tilim ku ko génne ci jàkka yàlla dana rek waxuma laa nag nga euh, nga setal jàkk ne gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna nga xam ne. moo daan bale jàkk ji nga xam ne soxna su ñuul la woon nee nañ daan bale jàkk ji daan ko toppatoo daan ko setal jekki-jekki rek faatu waxuñ ko yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam toog ay fan gisu ko daal di koy laaj ñu ne ko moom day faatu mu am ci lu ko metti lool daal ne hëlla fa hëlla azantumuni lu tee bi mu faatoo ngeen wax ko mu jullee ko dem ca laaj ab ya wax ko ko mu dem daal di taxaw ci bàmmeel bi jullee soxna soosu sallallahu alayhi nga gis kon kooku setal jàkk ak nettoyé jàkk ni mu ko ni mu ko ñorew ñoo xam ne kon jàkka yi kon barab la boo xam ne barab bu ñu war a setal la barab la boo xam ne barab buñ buñ buñ bu ñu war a bu war a nettoyé la bokk na ci war mooy jàkk yi mbokk yi euh, ci wàllu euh, war mooy jàkk yi mooy boo demee ci jàkk nanga fexe ba sàppi su njëkk si moom li fekk fiisul rek dem ci da ngay dem sàppi su njëkk si mooy sàpp su njëkk si li fekk feesul rek dem ca booy dawal na nga dawalee ci sàpp su njëkk si bu dawalee ba noppi nga toog xaar ba ñuy taxawal nga jug taxawal bokku ci bokku ci julli xam ne e, sàpp su njëkk si li fekk moo gën a nga toog ci feneen moo tax kon bul ubbi bul ubbi bul ubbi seneen sàppe te fekk si boppam e, feesul yonent bi sallallahu wax na ne wallahi nit ñi buñ xamoon li ci sàppe su njëkk bu ñu xamoon li ci soppi su njëkk te leen fay tax a toog doon tegoo bant nga xam ne tegoo bant moo leen fay tax dana dana dana leen jaral sax ñu tegoo bant ngir toog ñu tegoo bant ku bantam génn génn mu toog si soppi su njëkk xam ne kon lu am la waaye nag foofu nag li ciy wax mooy soppi su yi nag nañ bàyyi xel ne euh, ngëneel ngëneel li si am ak màggaay bi yëpp nag nañ bàyyi xel ne yonent bi daa wax ne ñay sës ci man ñuy sës ci man man imaam ñi nga xam ne ñooy sës ci man dik di tolloog man nañ doon ñi nga xam ne bu ma gàggee danañ ma mën a gàgganti bu ma jumee danañ ma mën a jubanti ñi sës imam moom dañoo war a doon ñu am ñu am fiqhu salaam yoo xam ne moom xam ne xam nañ fiqi julli moom nga xam ne fu imam fu imam gàggee danañ ko mën a gàgganti fu mu juumee danañ ko mën a danañ ko mën a jubanti bu demee bu imam demoon bay def li ñu tuddee istixlaaf it mooy dem ba am ngànt war a am kum wuutali kum kum kum xëcc rek mu mën a doon imam remplacé day dama tabaay kon it ñi ñi ñi ñi sës imam loolu nañ ko Euh, nañ ko nañ ko bàyyi bokk na ci war may jàkk yi mbokk yi ci wàllu ajjuma ñu xam ne bokk na ci war may jàkk mooy boo ñëwee ci jàkk ji imam li xutba xutba bi dañ ko war a diglu dañoo war dañoo war ne tekk di diglu imam euh, xutba bi bañ a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne euh, bu fekkee da ñëw ci bisu ajjuma imam di xutba sa moroom sa moroom sa moroom muy wax sax boo nekkoon noppil nee na yow julli neen na nee na yow sa julli neen na amoo amoo amoo julli kon jamono ji imaam di xutba jamono jooju dañoo war a bàyyi xel ne dañoo dañ koo war a dañ ko war a diglu waaye it dañoo war a ne ko jàkk yit nag jàkkaarloo moom di ko xool saxaaba yi nee nañ kaana nabi sallallahu alayhi wasallam iza xataba ramaqnaahu bi absaarina saxaaba yi nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masaan di xutba dañ naan ko jàkk ak suñuy bët di ko xool loolu it ci teggin ak worma yi nga xam ne moom lañ santaane ci jàkk ci la ci la bokk kon yooyu it nañ ko bàyyi bàyyi xel Euh, euh, waxtu wooyu ñuy xaw a dab waaye bindoon yu baree bari ci ay ci teggini teggini jàkk bu ko defee euh, li nga xam ne ci lañuy ñëw nag mooy ay njuumte yoo xamante ne ni ne mi ngi am ci jàkka te mata moytu lool bari na ay njuumte yu am ci jàkka yoo xam ne ñun ñii ne ci ñun ñii ñëw ci jàkk yi di fi julli see ñoo koy def bokk na ci yëkkati yëkkati kàddu di wax ci kaw ci biir jàkk loolu dëppwut ak war mooy jàkk dëppwut ak teggini jàkk jàkk bu ñu fi nekkee dañoo war a suufeel suñ kaddu dañoo war a wax ndànk dañuy wax ne ba ci sax ba ci sax boo doon wax lu baax ba ci sax boo doon jàng alxuraanul karim ndànk nga koy jàng boo doon julli ci yonent bi sallallahu sax ndànk ndànk nga koy def waxuma la na ngay wax leneen loo xam ne jiwut ci yooyu nga xam ne mbirum adduna la mën a ko di ko wax ci kaw loolu dañ koy dañ koy dañ koy tere te tëkku gu métti métti yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëkkoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit bu nekkee ci jàkka di wax ca kaw di yëkkati kàddoom nee na yàlla day yebal malaayka yi malaayka yi bu ñëwee dañ koy njëkk wax ne dañ koy njëkk wax ne ko uskut yaa wali yàlla ko yow yow xaritub yàlla yow xaritub yàlla bi ñëw ci néegub yàlla noppi bu noppi ñu ne ko uskut yaa baxidallah yow mi nga xam ne ko yàlla bañ nga noppi bu noppiwul ñu ne ko uskut aleyka laxnatullah ñu ne ko noppil yow yàlla na rëbbum yàlla nekk ci yow mooy yàlla na yàlla solil yéen ma dem ci yow te gis kon yëkkati kàddu ci biir jàkk kon ni mu ni mu ni mu ni mu garaawe ñu mu doon a njuumte boo xam ne njuumte bu rëy rëy la boo xam ne diisu kon loolu it njuumte la boo xam ne ñu ngi ciy tàbbi ñu bàyyi xel ne lu lu lu kiimaane la te suufeel kàddu xam ngeen ne ba ci lu dul jàkk sax dañ ko santaane luqmaan bi muy dénk doomam lan la ko waxoon wax dun min sawti in ankara al aswat la foo mën a nekk na ngay wax nag ndax kaddu yi yi gën yi gën a bon ci kat ci yàlla gën a bañ mooy kaddu kaddu yu mbaam te yëkkati kaddu day day xaw a nur ak eh, kaddu mbaam bokk na ci njuumte yi nga xam ne yi danay am ci jàkka mooy téléphone portable yi nga xam ne eh, yàlla dañoo nattoo ñu di ko yor dugg ci jàkk ba nopp ñàkk koo fay wala ñàkk koo def mu noppi loolu yi njuumte dañ xam ne jàkk néegum yàlla la buñ fu duggee sunu ak minde fi nañ ko dag nañ ko dakkal te ak yàlla rek ak yàlla suna bo ko nekké dana lélé dana dugg jàkk yo xane bo ci bo ci masaan dugg da ngay gis ñu bind ne euh dañ wax ne ittasil bi bi khaliqi waqta waqta waqta ittisalaka bil bil khalq loolu lañu bind mooy mooy na nga dagg na nga dagg sa jokkoog nit ñi te jokkaloog yàlla rek fi ndax ci néegub yàlla nga nekk kon euh, dugg ci jàkk ba noppi sa téléphone nga bàyyi ko muy tàkk loolu yi njuumte la loo xam ne dañ koy maytu ndax it loolu yow yow yow yow si jëm bopp dalay dalay dalay jax-jaxal waaye day jax-jaxalaale ñi nga xam ne it ñoo nekk ci biir jàkk ci leen jax-jaxalaale dana leen jaxal loolu it kon ñu di ko bàyyi xel bokk na ci <coughs> euh, njuumte yi nga xam Eh, danay faral di am ci ci ci jàkka ji mooy ñàkk def tahiyatul masjid waxoon nañ ko léegi waxoon nañ léegi ne maanaam bokk na ci war may jàkk bu duggee ci jàkka ji ci waxtu woo ne waxtu dagan naafila la nga def nga def nga def tahiyatul masjid léeg-léeg ay njuumte la yoo xam ne yenn ci bokk ci dañ ciy tam dugg ci jàkk ba noppi te duñ nuyu borom jàkka ji loolu it fa tabarakallahu njuumte la kon ñu xam ne jàkk buñ ci duggee bu dee waxtu woo xam ne terewuñ ko ci naafila waxtu woowu dañu war a def li nga xam ne moom mooy taxiyatul masjid bokk na ci ñoom tey am ci jàkka yi it léeg nga gis jàkka yoo xam ne day mel ne soxna yi amuñ cëb cër wala waruñ fa julle di te di tere soxna yi jàkk bu mel ne ñoom ñoom ñoom bokkuñ ci jàkk ji di njumte la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon laa tamnahu ima allahi masajid allah bu leen tere soxna yi maanaam bu leen leen tere néegi yàlla yi bu leen leen tere néegi néegi yàlla yi fi ne am na jàkk yoo xam ne loolu laa dem ba mujj na doon fa culture ba nga xam ne soxna yey dëkk ci koñ ba sax jàpp ne jàkk jàkka ñi wuruñ fa wuruñ faa jox xam dañuy jàpp ne événement ba événement rek dañu fa war a def te moo ne mbokk yi jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam soxna yi daan ne dañ jàkk yi di julli ci waaye yonente bi sa la wasallam daf daan am lu mu daan tàqal diggam ak ñoom rek nga xam ne ñoom fa ñuy nekk góor ñi duñu leen gis ñoom ñoom ñoom ñoom soxna kon loolu it ñu bàyyi ci xel euh, bokk na ci euh, njuumte yi nga xam ne it fa tabaarakallaahu mi ngi am ci jàkka yi ñu di ko gis mooy di indi ay sarax ci biir jàkka yi ngir di ko jox imaam yi wala li ko jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir bokk yi sarax dafa am ay barab yuñ koy joxe dafa am ay barab yoo xam ne boo ko dee yóbbu yi dafa fa nga koy yóbbu waaye euh, indi sarax ci jàkk ji ngir lan ngir di ko jox imaam walla ngir di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy jullee ci jàkk yi dañu xam ne loolu euh, fa tabaarakallaahu dëppoowut ak war may jàkk dëppoowut ak war war may imaam ndax loolu it beneen image lay jox lay jox imaam bokkut ak euh, daraja ji mu amee dëgg-dëgg ak bu bokkut ak wàccuwaay bi nga xam ne moom la amee dëgg-dëgg ci li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy kon sarax bu ñu ko dee def nañ ko jox ña nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko yeyoo bu ñu ko dee yóbbu it nañ ko yóbbu fa nga xam ne moo moo yàlloog moom te euh, euh, moytu di ko indi ci yi nga xam ne moom mooy euh, mooy jàkk yi bokk na ci ñoom tey it mbokk yi faral di am di rafetal jàkk rafetal goo xam ne bu ëpp la rafetal goo xam ne bu ëpp la nga xam ne bu ñu duggee ci jàkk ji sax day dem ba suñu xel di demati ci li ñu indi ci jàkk ji muy julleek jaamu yàlla waaye suñu xel ci li muy dem rek mooy rafet rafeti jàkk loolu moo tax yéen bi saa sallam moytu ndikaloo wuñu wuñu woon lo loolu mooy jàkk jàkk yi bu leen di ëppal ci di ko rafetal na rafetal bi di yem rek waaye bu rafetal bi bu ëppee rek bu boobaa day dem ba ku fa dugg xelam lépp ci àdduna rek lay dem lépp ci àdduna rek eh, lay dem loolu kon ci yi ñuy moytu ndik lool bokk na ci ñoom tey am ci jàkk yi mbokk yi mooy léeg nga dem ci jàkka gis kuy julli koo xam ne espace bu muy jël day nekk espace boo xam daanaka ñaari nit xaj nañ ci wala ñett ñaari nit xaj nañ ci wala ñett loolu it mbokk yi tooy isa qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yàlla suñu bon ba taala dëgg la am na lu am na nu yonent bi sa alayhi wasallam santaane ci kuy julli mu jullee noonu ci kuy julli booy sujjóot sa li nga xam ne moom mooy sa tenk sa euh, euh, tenq yi maanaam sa xasab yi waroo koo teg ci ci suuf naka noonu it lii wurta sës fi loolu dëgg la waaye nag na na yem ndax xayrul umuri awsatuha mbir mu nekk li ci gën mooy li ci gën a li ci digg doomu waaye nag di julli ci jàkk ji jël espace boo xam ne yow daanaka espace bi nga jël ñaar xaj nañ ci wala ñett xaj nañ ci loolu fa tabaarakallaahu ak teengal la gën a doon ak taral ci diine waaye doonul loo xam ne lu digg doomu loolu it kon euh, nañ koy euh, nañ koy bàyyi xel mbokk yi bokk na ci njumte yi xewi ci njàkk ci jàkka yi mooy tàmbali sappe te fekk sappe si nga fi fekk feesugu tàmbali sappe su te fekk sappe si nga fi fekk feesugu masalan nga ñëw njëkk si feesugu yow nga ubbi seneen sappe te fekk sappe su njëkk si daa xaaj rek wala am na am na ay yër yër yu fa des yoo xam ne war nga caa wala loolu it nañ xam ne ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la salaata li munfaridin xalfa saf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul julli ki nga xam daa ber sàppis boppam moom képp te fekk ba mu koy ber sàppis su njëkk si feesut te fekk ba mu koy ber sàppis su njëkk si feesut kon loolu yëpp nañ koy bàyyi tey nañ nañ xam ne fi ne mbokk yi fekk sàppis su feesut nga feccali ko li ci nekk ci tuyaaba kenn ko nu mu toll yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man sadda furjatan bana Allahu la baytan fil janna ku fekk sàppe soo xam ne dafa am ab yër-yër boo xam ne nit xaj na fa nga dem dugg nee na ku def loolu yàlla dana la ta am nekk càgg nga xam ne kon feccali sàppe moo gën sos sàppe te fekk ko ñu bàyyi xelit ne mbokk yi sàppe yi bu ñu koy tàmbali ci ndeyjooru imaam lañ koy tàmbalee ci ndeyjooru imaam ci lañ koy tàmbalee masalan ci jàkka ji sàpp sàppe bu feesee bu ñuy tàmbali ñu ngi ngi tàmbalee ci ci wàll gi ni nga xamee ne boo doon julli yow rek yaak imaam ci ndeyjooru imaam ngay taxaw naka noonu boo ñëwoon fekk sàpp si fees it si sàppe bu ñu koy sos ci ndeyjooru ndeyjooru imaam fi lañ koy lañ koy sos fi lañ koy tàmbalee loolu euh, it lu mat a bàyyi xel la euh, bokk na ci mbokk yi ñu tey amit ci suñu jàkk yi fii ci Sénégal mooy xëccoo xëccoo imaamatu ci jàkk loolu it mbokk yi ku ne xam ne ne dëppoo tegoon may jàkk xëccoo imaamatu ah, kuy kii kii jàpp ne moo war a jàpp ne moo war a jiite moo gën a yee ci imaamatu gi kii la jàpp ne moo gën a yee ci imaamatu loolu it fa tabaarakallaahu euh, njuumte la ndax it nag imaamut responsabilité bi ci nekk ak melokaan yi nga xam ne sax moom la sariha wax ne kañuy tànn ngir mu doon imaam faw yi moo war a daje ci moom ku ko xam ku ne foog naa ne doo ko doo ko doo xëccoo wala sax nga di ko nga di ko di ko xëcc te euh, fii ci Sénégal gis nañu mel noonu day am amoon na fa ay jamono yoo xam ne gis nañu ay ay xëccoo yu amoon ci jàkk ba ba ay joxlante kàddu yu kiimaane amoon te euh, mbir mi warut a demee noonu te gis ngeen muxtasaru li mu wax. ci wàllu imaamatu nga xam ne fi ne ci wàllu imaamatu bi bi muy jàngalee sat euh, ki gën a yey ci jiite bi mu waxee ki ki gën a dégg fiq bu amul ki gën a rafet jikko ki gën a euh, rafet ay yére yu mel noonu mu ne bu ñu demee ba ñëpp yemoo nag buñ ñu demee ba gaayee yemoo ci imaamatu ñuy xëccoo te xëccoo agré yi taxul boobaa dañuy dañuy tegoo bant ku ab bantam génn rek kooku moom mooy doon imaam waaye la wax mooy laali kibrin mooy bu fekkee agré yi taxul waaye bu ñu demee ba xëccoo gi nag leneen na ko leneen na ko lal wala da bëgg daraja ak bëgg pas-pas loolu euh, bu boobaa daal kii kon yooyu kon ay ay ay ay yundal li ñuy jeexale lay mbokk yi mooy ni ñu ko waxee mooy di indi ci jàkk ji yëre yoo xam ne méngoowut ak euh, jàkk yi loolu nañ koy moytu loolu danañ ci faral di joxe misaal lu mel ne ñëw ci jàkk sol ab mayo masala mayo boo xam ne dañoo bind ci ginnaaw turu turu ziir sàng nga xam ne loolu it fa tabaarakallaahu ñi ne ñi nekk ci sa di julli donte kii julli sax dañ ko sant buy julli mu toog mu xool ci kanam fi muy sujoote waaye ab xolam mën na rëcc ba mu xool ba mu xool bu bu sàngam ko defee xelam mën naa dem ci kooku euh, koy nañ koy bàyyi kon euh, ay ay la ci ay njuumte yuy am ci jàkka yi euh, yoo xam ne fa tabaarakallaahu mat naa mat naa xam matama bu ko defee li ñu koy tëjee rek mbokk yi mooy ñu xam ne daal jàkka euh, naka jekk dafa mas a am wàccuwaay dafa mas a am taxawaay bu mu mas a am ci julli ñi taxawaay boobu nag mat nañu xam ko delloo si wat taxawaay bi mu amoon ci jàng jàngale taxawaay bi mu amoon ba ci sax ci wàllu social nga xam ne jàkka dem nañ ba dañ dañ daan tabax sax ay néeg yoo xam ne li tax ñu ko daan tabax mooy euh, doxandéem bu ñëw ci dëkk bi te amul fu mu nekk mu mu mën dem ci jàkk yi dal loolu it na xam ne ci bi jàkk la bokk ak ci wàllu sax euh, jàngal nit ñi ak yar leen ak xamal leen seen adduna loolu it euh, ñu xam ne euh, taxawaay la boo xam ne jàkk war na ko am ba tax na kon daal ñu ngi jeexalee di wax ne yàlla na daal jàkk ju nekk mu am géew xam-xam boo xam ne dañ fay dañ fay jàngale moo xam bis bu set lay doon wala semaine bu nekk wala weer bu waa quartier ba ak ñi bëgg a jàng di ko teewee waaye yàlla na it jàkk ñu di fa organiser ay waxtaan ak ay conférence ngir xamal nit ñi ak ngir yee nit ñi bu bu baax a baax a baax loolu lépp nag lay tax mu mën a am mooy eh, ñene ci jàkka ja xam nañuy saytoo jàkka ja ak nañ koy taxawoo ak nañ koy aaree nañ koy nañ koy nañ koy yére kon mu mel ne waxtu yi ñu jagleeloon jeex na ñu ngi jégalu bu baax a baax tey baalu àq di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ak dégg topp eh, bu ko defee insha allahu lii ci manqué rek eh, mbokk yi ñëwaat ginnaaw bi dañ ko mottali sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa yàlla mi nga xam ne ni moo ñu mayal fan wu gudd ak tawfiq ak tal ba ñu fi ci barab bu tedd bi di dundal jéem a dundalaat weer wi niñ ko daan defee ci at yi ñu génn yépp kon ci turu sëriñ gede dañuy njëkk a jiital kàdduy cant jëme ko ci lañ na saxaafa bi nga xam ne nii ñooy taxawee jotaayu tedd yu am solo yi di jotaayu xam-xam yi rawatina doxalin wi nga xam ni moom lañ ko doxalee ren ngir bëgg ak yaatal ak rafetal ba tax ñu séddee ko ci ay kër tuddee ko mag ñu baax ña nga xam ne ñoo ne woon fii ci gox bi di dundal barab bu tedd bii nga xam ne nii barabu sëñ Touba la ca barabu sëñ Touba nag mooy barabu lislaam rekk sëriñ Murtala radiallahu anhu buñ masaa wax ne kër sëñ Touba danaan waaw kërug lislaam rek kër sëñ Touba mooy kërug lislaam rek ca loolu mooy li am fii ndax fii barab la boo xam ne ni ko sëñ Saam ubbee barabu xam-xam la ndax ki ko fi sos ci xam-xam la ko sosee ndax bari na barab yoo xam sëñ bi mas na jaar julli fa ñaari ràkk daal di jàll wala yendu fa jàll waaye fii lu wér ne def na fi juróom-ñeenti weer yoo xam ne ni ci taalif la doon def ca téere bi gën a ràññeeku bokk na ci téere bi gën a ràññeeku ci taalif muy masaalikul jinaan fii la ko defee kon sëñ bi moo fi njëkk a taxawal xam-xam kon yéen ñi nga xam ne ni yéenay saytu jëf jooju dafa mel ne dégg ngeen sëñ tubaa bu baax a baax ci bëgg-bëggam ci gox bi kon su ngeen jëlee bés bi tey tuddee ko suñu waajur ca muy tàmbali rekk waaye danañ ko topp ba mboolem mag ñi nga xam ne ni ñoo ne woon ci gox bi ñu fàttali leen ko loolu day am day lu am solo lool ndax ñoom de amuñu woon lu dul fii ñun ñëpp dañoo judd fekk leen barab bi ab seng la woon waaye ñoom seeni jéego ak seeni yëngu yëpp mooy sàmmanteeg juróomi waxtu yi saa bu nodd gi daanoo ñooy jiitu ci jàkka ji kon bu ngeen jëlee kàddu yooyu bu ngeen jëlee bés bu mel nii delloo waat leen ko tuddee leen ko yaakaar naa def ngeen lu leen neex daf ngeen lu sedd seen xol jëf la joo xam ne yéen yéen waru leen sant njaboot njaboot gi waaye njaboot gi ñoo leen war a sant ndax mënoon na ñëw ba jàll ca duñ ci demee niñ ci demee ni kon ki la dimbale woola ci lu baax nga jëm ci nga jéem ci sa yu katan ya ko ameelu sant waaye moom la sant kon noo ngi di sant ci turu kilifa yoyu di len gërëm di ñaan yalla mu def leen ngeen di mag di ñaan yàlla li ngeen bëgg barab bi mel ko ci ci wàllu xam-xam ci dund yal leen yàlla jàppale ba ni ngeen ko bëgg ngeen amee ni ko dafa mel ne ressource humaine bi moom am na ba kon li ci des mooy pasteef bi rek ak farlu gi bu pasteef bi ya farlu bi taxaw mbooleem li nga xam ne nii mag ñi bëggoon nañ ko ci barab bi ca ngeen ciy jéem yàlla mën nañoo dimbale ba lépp taxaw muy daara rek kon sëñ bi na mi ngi leen di gërëm di leen bu baax a baax di leen encouragé ti jëf yu mel nii xam ne fii ngeen teg seen tànk foofu rek la barab suñ barab bii barabu suñ borom la ni ko sëñ Xaadim waxee barab suñ boroom nag dundal danga la laaj dundal ko ci xam-xam ci na loolu mooy li nga xam ne nii moo waral jotaay yii kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm. di wax ne mi ngi ci mi geng koy rafetlu bu baax te ngeen gën xool lépp loo xam ne xool ngeen ba gis ngeen ne lu koy jëmee kanam la lu rafet la rek moom ànd na ci yéen amu ci benn xaar ma yàlla wala benn leen xalaat lépp ngi seen loxo ndax ne dara taxu lu defar ak dundal barab bi ak dàkk li nga xam ni bëgg-bëgg kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne ni moom la sëñ bi waxoon ne nañ leen ko jottalil di sant bu baax di gërëm ba ca topp rek di sant conférencier bi nga xam ne mooy sëñ xaadim mu jël thème bu am solo ca muy Jakka jàkka lu am solo la ci lislaam bu fekkoon Islam day am mandarga jakka mooy symbole lislaam ndax kuy wax ci lislaam sax bu dee image la jàkka na ngay njëkk a wane doo ko wax loo ciy wax kon jàkka mooy symbole lislaam bu fekkee lislaam am na symbole mu mel ne ku déglu conférence bi ak dal man ne li ma ci jàngate mooy jullit bi daal lépp lu muy def war naa fexe ba xam lan la ci suñu borom àtte te loolu la Sëñ Tuubaa jàngale day xaraam ci mukallaf muy jëf lenn ca xamut lan la ci suñu borom àtte mu mel ne te yi nga xam ne fitu moom nga moom nga fi tudd yépp farlo xam moo mirum lal kon farlo bi ni muy farloo ci toppatoo mbiram adunaam ni muy farloo ci saytu ay soxlay ni la lu ko raw ci xam mbiru ne lu am solo la waaye du caage ne da ngay ñëw rek nu la neex rek nga nekkee ni ko fa ndax barab boo xam ni borom idaafa ci boppam ni ko suñ xaadim waxee muy barab bi gën a sell ci ci kaw suuf ndax néegu yàlla mooy jàkka ca néegu yàlla mooy bërëb bi gën a sell ca kaw suuf foofu soo jógee di fa jëm war ngaa farlu ba xam li nga xam ne ni moom lañ fa bëgg ak lañ fa bañ ak lañ fa sopp mu mel ne kon tey jii sëñ xaadim delloo si waat nga ñu ci indil ñu dars bu mag a mag bu am solo boo ya ne ni yaakaar naa bu temps bi gënoon a gudd sax dañ lay bàyyi rek nga wax ba mu jeex ndax leen tomb boo ci laal bu ne rek fekk na nit ñi soxla ko bu baax baax ñu war koo xam kon julli di war nañoo gën farlu ci fonk na ci fonk jakka nak mooy di teew ci julli jàkka julli waxtu yu wax na fi léegi radiyallahu anhu ku ne xam na ñàkk jot gum ñàkkoon a jot ku ne xam na soxla yu ko mbindeef yi soxla loon waxtu wu nekk saa bu ubbee buntam fekk mu nga fees ndel ay nit soxla ko ku ne xam na nem séddale woon jamonoom ci jaamu yàlla waaye teewut këram gum kër gum mas a nekk jàkkaang fa joo xam ne lu muy lu mën di jàpp ak lu mën di def bu waxtu julli jotee mu ne ko fa ñukk waaxu dem ca jàkka ja jiite ko julli waxtu yu juróom bu noppi doo ko delluwaat ci leneen lu muy dellu nit ki nag su fekkee ne da nga ne moom laa yaakaar da nga koo war a roy ci mboolem lépp loo xam ne ni moom nga gis ne moom la daan def wala moom la borom xam-xam yi wala ña ko fee tekkee woon fekkee woon wax ne moom la daan def wax nañ ne am na ndaw loo xam ne ci këram la ne woon di liggéey ci kër sëñ tubaa la ne woon ca jawriñ la woon wax nañ ne sëñ bi am na bés boo xam ne dañoo daa julli ji ba noppi geesu gisu ko mu laajte ko ñu xamal ko ne moom kat mu xam ne mu wax ko ne moom kat dafa newoon ci gan wala ci yeneen yitte yoo xam ne ñoo newoon ci kër gi ci ci loolu la newoon ci ndigalu sëñ bi waaye sëñ bi da ko da ne jëlal say bagage te génn sama kër man duma dëkk koo xam ne nii du teewee julli mbooloo loolu kon doy na sëkk ci wax ne sëñ bi fonk gi nga xam ne fonk na ko jàkka ñun nag mën nañoo tabaxi jàkk lool mën nañ cee def suñu alal lool mën nañ koo rafetal lool waaye lenn rek lañ tële mooy dundal ko dundal ko loolu rek lañ tële bu waxtu julli jotee soo duggee ci jàkka ji da ngay rus ndax néew gu sàppe yi néew ci mbooloo ma fay teew ca moo ne moo ne mboolem quartier bi de kër gu ne bu fa ñaar wala ñett génnoon rek jàkka ji fees ca loolu mooy liy dundal jàkka kon tabax jàkk baax na lool rafetal ko baax lol lool waaye nag li am solo mooy dundal ko ca dundal gi mooy waxtu julli jotee nga bàyyi li nga doon def lépp ñëw juróomi minute yi ngay box jox suñu borom mënta yàq lenn soxla ci kaw suuf kon xam waxtu mi ngi bëgg jot kàddu yooyu rek ci gàttal rek laa ne woon naa ko di am mbég lool ci tem bi ak ni ko sañ xaadim ñoo ngi ñaan suñu borom may la fan wu gudd yokk sa xam-xam ba li nga bëgg a liggéeyal lislaam nga liggéeyal ko di sant